jëwriñ yi kuréel gi sëriñ Muntax sëriñ Murtala taxawal ngir jàppale daara yi nga xam ne nii moom la féeteel ca xelkom ak ca njàppandal ngir lépp lu war ci njàng ma na ko wajuróom ba doon doxale bàyyi ko moom man ko wéyal ba dara bañ cee soppi ku dara bañ cee yàqu dara ñu bañ dellu ginnaaw eh, taxawaay bi nag mooy fexe ba ñu fay jàngale di sëriñ daara ya lépp lu war ci ñoom ñu taxaw ca jàppale ji sëñ bi sëñ bi jàpp ji ba seen dara du manqué ci walu payor muy seni salaire weer wu jot ñu war la ak di len ko di len ko jox ndax keur lañ di boromi soxla di jangale te am lu war ci ñom sëñ ne taxaw tem ci lola dara du ci manki ben yoon di jappale ko ja ñok talibé yëpp fexe ba weer wu dee wu ne ñu dajale la war ci ñom jox len ko ndax ñu man ko jëfëndiko ñok seenu njabot aji tam ñi nga xamni ño fay jang di ay ndongo lepp lu war ci ñom ñu taxawé ko ba seen dara du manki ndax dañu bayyi seeni ñomit bàyyi seen kër jox leen sëñ bi wóolu ko sëñ bi di seen wayjur di seen lépp war leen a taxaw ñu ànd ko moom lu war ci ñoom lu ne ñu taxaw ca seen dara du manqué ah fas yéene itam lépp loo xam ne nii daa jublu ci maanaam lu mel ne xew-xew yi xew di gàmmu di korité di ci koor gi laylatul xadar di eh, màggal di tabaski di korité lépp lu war ci ñoom ñu mën mën a am ay bernde ne ñëpp ñu def ko ba seen dara du manqué noonu lañ taxawee taxawaay bi am ci màggal gi mooy ñi ci taalibe bi yëpp am rek mooy fas yéene te taxaw ni ko Serigne Touba digle woon ci santalee ko boromam ñu defe ko noonu euh, sëriñ bi it am lu ñu ci dénk fii ci kër gi moo ci wàllu waxtu wu ñu demee ba guddi gi ñu ànd ak mbokki taalibe yi waxtaane ñoom ay jàngat ay tomb yoo xam ne nii dañ koy def ab yóbbal ci màggal gi muy conférence yoo xam dañ ko fi amal fàttali leen teg taalibe yi li leen tax a jub ak ni ñu war a defaree seen comportement ak murid saadix dëgg-dëgg ni mu war a mel loolu ngir mu nekk ab yóbbal boo xam ne ku fi jë ku fi jóge da nga ko yóbbuloo nga jëm loolu mooy sunu taxawaay ci li ñu sëñ bi dënk ñu war koo taxawee ci bisu maggal gi. sëñ bi la mu taxawaloon ca donga yi yor donga yi jox leen ay ay gone mu leen di jàngal la mu waxoon rek li sëñ Tuubaa defoon ci mag ñi mu def ko ca gone yi mu nekk loola ba làqu bàyyi ko waa këram ñu ànd ca loola ñoom itam fas yéene dara du ci dellu ginnaaw jàppale donga yi di leen jàngal di leen tette di leen defar te leen ci yoon ba ñu doon ay taalibe murit saadix doon ay jullit àqan man alxuraan man li war lépp ci ab jullit. sëñ Saliou lim am ci li mu amoon ci ay daara kenn xamul lu mu toll ay daara yooyu ay junni junni nit yaroo ci bokk na ci daara yi ci gën a mooy xel koom ñun nag suñu liggéey fi ñu sëñ bi gën a féete mooy daara yooyu nga xam ne nii moom la fi. moom la sëñ bi bàyyi woon ginnaaw sëriñ Mourtala it ci daara yooyu na ko sëñ bi doon defee rek ci jàngal ndongo yi yar leen tarbiya leen ci loolu la ñu féetale ci liggéey boobu la ñu nekk di ko saytu nga xam ne nor sëriñ Saliou doon jàngalee ak nam doon tarbiya ndaw ñi bi mu ñëwee biñ ko noppee gi ci Zahir Cheikh Mouhamadou Mourtala it nam ca war a taxawe népp mi koy taxawee ci fexe ba dongo yi jàng alquran jàng seen diine waaye ñu tarbiyu am ay jikko yu rafet ba nekk murid saadix ba nekk royukaay ci fépp fu ñu mën a jëm salaatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani ala mahin ma al hassa wa safar